APR tey ngeen ñëw pour jébal seen jàll ban témoignage nga mën a def ci père Mor Fadam. waaye bi ñëpp def rek bi ñëpp di def mooy Mor faram kenn la nit ku baax nit ku gore nit ku am diine nit koo xamante ne kenn la ci làmb ji ku mel ni Mor faram dotul amati ci làmb ji ndax melokaan gi mu yor Mor faram da ngay toog ba ci yàgg sa nga ne est-ce que la Mor Fadam bëggul sax adversaire bu baax ci du wax lu ñaaw lu muy wax lu baax la ci doomu aadama moo tax euh, ñu ñàkk ko baax man nag personnellement dafa nekkoon sama xarit te du woon loo xam ne dañuy wër di ko wax wala di ko siiwal waaye moom xamoon na man xamoon naa li nga xam ne moom laa doon seq ak moom ndaxte man daf maa wóoroon ni Mor Fadam bëgg na ma man wóor na ma moo tax nag bi mu demee vraiment ñu xam ne Sénégal yàlla nag nii lay doxale yàlla ni lay doxe et puis àdduna noonu la day wërandul day wër rek day wër rek adduna noonu la demee boo boo fi jógee bu fi bàyyi jógee doom yeey jël relais bi affaire yi noonu la demee yooyu yëpp ay yokk jom la yàlla na yàlla def ci njabootam gi jom ngor diine gi nekkoon seen baay pour ñu mel ni seen baay nag yombul waaye yaakaar naa ni bu nu góorgóorloo bu nu ko jéemee dinañ ko am. justement mu doon seede yu rafet mais ñu gis ne mënoon nga ñëw dans la journée mais ngeen choisir guddi gi lan moo waral choix boobu. moo yow loolu daa am ak bañ a choix doo ma xajal. <laughs>